yaxam seen yàlla suuf oyof ci kaw ñun suñu waajur yi ñun ñoo të màgg di ànd ak ay góor jigéen wala di wax ak ay góor jigéen mais ñun suñu waajur yi daawuñu nuyu góor jigéen séquñu kook ñoom mais ci ci jamono ji ñu toll nga nga xam ne boo xoolee certaines grandes boîtes wala investisseur sama doom góor la sax te du wax doom sama doom man wala wala investisseur bu ko sentiree ci yow sax da lay bàyyi yu ci yu ci bari daanaka boo boo demee di di nga ci gis ñenn ñu mel ñoom mais boo déggee ñu ñuy wax affaire góor jigéen ci diggante Ousmane Sonko ñoom Diomaye ak gars yi ñoom ñoo ñu wanoon ne Macky Sall day fréquenté ay góor jigéen ñoom ñoo ne ñu déglu waajooju sant Diagne ci ab audio mu ne Macky Sall ak eh, gouvernement laay Wade defe naa xaw ma ba ba tey ay góor jigéen ñoo fi nekk ñun loolu lañ ñu wax ñun moo tax fi ay góor jigéen ay bisexuel gars yi dañ koy wax mënuñoo te gémmiñu nit ñi ba duñ ko wax premier ministre canadien bi fi ñëwé ils ont montré au Sénégalais que Macky Sall a amené un góor jigéen ici au Sénégal mais blague à part chacun a sa vie mais ñom ñoko wax sénégalais ba sénégalais di len vaar ñoo leen wan ñun dañoo bëgg deugal sénégal Séné euh, góor jigéen dañoo bëgg naka daganal góor jigéen fii ci Sénégal ne Macky Sall da ko da bëgg daganal bien vrai que Ousmane Sonko bi mi signé il avait mis ben benn qui euh, de réserve. Mhm. parce que fofu je le comprends. Mhm. ndax fi sa yaram day jigéen sax ñu door la ba ngay bëgg dé wala nga mbañ ma def ma sa non né nday saw giwin la daan may yóbbu ñu tëj ma wala ñu ray ma yooyu yëpp droit de réserve boobu mom ñu ngi ko ci sam mhm. mais nak quand ta ñu bëgg ñëw né ñun duñu wax ci waxi góor jigéen ñoom ñu dëgg. d'accord bu góor jigéen ñëwee ci biir dëkk bi melni xalé bu goor bi fi ñëw barki dem dañ koy wax s'il y a des bisexuels qui viennent au Sénégal, on le dit. S'il y a des gors, ils sont à voile et à vapeur, on le dit. Mais mais mais la députée Amine Ndiaye Nibi dougal na euh, je voulais bien savoir fan la tollu quand même. Depuis lors amatu ay information mais xeyna ci bokku lool nak warna ma lit gi may saña di wax nak deug la parce que vraiment am nañu lo xamné war nañ ko examiner Assemblée nationale député banque seen loxo loolu tamit war nañ koo xoolaat parce que proposition de loi boobu nga xam ne moom dugaloon na ko rek instant bi ak fi réew mi toll fi débat bi tourné waroon nañ koo examiner assemblée nationale mais bon gis nañ suñu député ñu banque seeni loxo Guy Marius Sagna génn na bët ki démb ci ci Jeune Afrique def dénoncé lu ni mel te ñu ngi xaar ñu ñu ñu ñu delluwaat léegi ci liggéey ba yi daal li mu waroon na wax mooy ñun ñii bi ñuy ut réew mi waroon na ko wax ci Jeune Afrique mhm. ne leen ñun bi mi dañ ñëwoon góor jigéen duñ ko fi daganal mhm. duñ ko fi daganal mhm. dañ koy criminaliser wax leeral. mais suñ ko criminaliser woon tey jii tamit ñu ne Sénégal criminaliser lañ li nga xam ne mooy l'homosexualité

je me dis que bu nekkee dañuy dem ba di ko criminaliser Charles Michel bu effectivement euh, foofu laay ce gars là comment il s'appelle euh, le le le le le bâtard de tout le métis là. Euh, Juan Branco Juan Branco de war a Mélenchon ñëwaat avec son discours. Euh, ainsi de suite, je pense qu'est-ce qu'on est dans sort pour nous criminaliser quoi. Mais, mais, mais... les gens vont se dire que nous, est-ce que nous criminaliser ça Nous, nous, en fait. Euh, ñi nga xam ne ñoo ñu war a ñëw di ñu dimbale wala ñu seq ñoom liggéey ñoo ñëpp ñoo ñuy bandone xanaa booboo gën a dee. ci ñu criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité. parce qu'ils seront pas d'accord sur sur cette décision là. mais ils n'ont pas leur mot à dire. au Ghana au Ghana ils étaient en train de faire comme ça mais est-ce que mujjee wu ñu accepter li li leen proposé je pense que c'est le Ghana parce que dañ leen ko doon imposer. Mais je pense que c'est une euh, décision pour ramener les gens vont le voir de de ko xoolaat bu baax a baax daal xam état je pense que loolu di criminalisation bi di nga ko xoolaat bu baax euh, parce que Ousmane Sonko bi muy ñëw loolu la mais bon on voit que euh, dès na ginnaaw parce que quand il est avec Macron il wax ak Macron Diko ko di raay truc par le par les sentiments ça signifie que il a lâché prise est-ce qu'il a lâché euh, non parce que euh, si, si ça bu nekkoon lâché wul bonne prise dina wax euh, parce que. mais aussi li ci hein, li ci mais li ci opposant tamit du du du du. non non affaire bi gouvernement loolu daf ko wara xam kon warut a fen lolu Sénégalais ba tax ñu jëlé fi ki fi nekkoon te ki fi nekkoon macha mi ngi doon liggéey. di def lu baax mais ki fi nekkoon tamit dafa doyal. non non waaw doyal. jërëjëf ku fi waxee doyal ku may and ak Ousmane ku jàkkaarloo Ousmane son ko doyal.

sëñ Goundou boo seetaanee kii tegal sëñ Goundou nu junior na ko teg yone na seigneur junior bu ko teg de mais nga gis sa sa saa njóogu mu mel ne tok fi mu tok non mais euh, dit euh, <laughs> non mais Sénégal dal la ilaha illallah mais aussi man man xaw ko woon parce que tout le monde va aller voir lan kan mooy euh, non comme comme comme comme lima wax rek comme sa président comme li ma wax sànq rek comme lima ah, wax sànq rek président de la république dafa wara am mit ken waxuko ko démystifier non dem bay wone ne di wax ay secret d'état di wane ne man su ma ko nee tegal na teg xam nga liñ naan wax ka dina wax ba làmb taatam ne bii di sama bos su au looloo ko dalu dem na bay tari sa euh, ay arxuraan saar boo xam ne munu ko mi ngi bégee ndax munu ko loolu moom du moom donc Sénégal moom suñu kilifa yi moom saa alxuraan bu yeboo ñu lam ko ba mu njëkk tegee ko nii gis nañ fi ay ay ay mais bosam bosam feeñ non dëgg la mais moom ah, ah, amoon na amoon na ñu fi ñu fi feeñ la woon de ca ca ca ca kii ba ca hôtel ba ca hôtel ba dégon naaf te dégg naa ab sëriñ la lam doon tari maandoo ko gën <laughs> xamul da ngay maan waaw ci ah, waa APR ñoo aye woon jour boobu waaye lam fa tari boole fa laxeeg naas gars yi ci commentaire yi bu fi sëriñ bi sëriñ <laughs> sëriñ bi damaa fàtte damaa fàtte nu mu tudd waaye ku xam nu mu tudd na ko bind ci eh, commentaire yi boole fa euh, laxeeg naas moom yàgg na je pense que euh, gouvernement bi sax dañ koy dañ koy tax kii parce que quand Ousmane Sonko montre que euh, le le ministre de la justice me demande avant d'exécuter mais terreur aussi yàgg na yàgg ci parce que le yago dara rek le président Macky Sall def wax na fi loo xam ne ñun suñu biiree toogoon nañ benn une heure de temps ku nekk sa biir di metti parce que toog ba si yàgg ñu ne waaw reporté reporter élection yi ñu dem assemblée Diop si may ñu